candidat yu war a bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 yéenekaay bi ne jamono ji naka nopp yépp waa conseil constitutionnel naka la ñuy déglu waa F24 naka ña ngay sàkku ci juróom-ñaari sages yi nag ñu daal di naka def seen kéemtalaay kàttan assumer seen ay responsabilité te def seen àqulaay taalaaj ndax naka peuple bi yépp moom la ñuy xaar te bëggatuñu naka benn nit di ñàkk bakkanam ci ay élection wax ci ñeneen ñi nga xam ne rek def nañu jaloore ju rëy démb mu di équipe nationale bu Sénégal ci Coupe d'Afrique bu atum 2023 ci diggante Sénégal ak Cameroun yéenekaay bi di l'enquête dellu siwaat ci démonstration en force bi nga xam ne rek équipe nationale bu Sénégal amal nañu ko yéenekaay bi ne gaynde yi corrigé nañu indomptable yu Cameroun Aliou Cissé nag di coach sub gaynde yi ne amal nañu match bu rëy la mu rëccu rek mooy bal bi mu jël waaye nag terewul muy xamle itam ne ma ngay rafetlu engagement bi nga xam ne rek gaynde yi wane nañ ko ci jongante bi ñu doon amal nag niki déem Kalidou Koulibaly di capitaine u yi nag jàpp ne qualification bi nag ab bu baax la Ismaïla Sarr xamle ci bi ne lépp lu ñu mënoon jàmmarloo ci seen diggante Cameroun Walf Quotidien xëy daal di titre nag ne fanweeri at ak ñeent yoo xam ne rek dañu ko doon dund ci jafe-jafe tey jii nag loolee lépp jaare na fa daal di tàbbi géej gaynde yi qualifié nañu ci huitième de finale coonob élimination yi ñu daan dal nag ci premier tour atum 2010 ak léegi naqare nga daan am yépp tey jii nag suñu gaynde yi fajal nañu ko ba daal di qualifié ci huitième de finale yéenekaay bi di Vox Populi ne Sadio Mané kay ak ay ñoñom nag defaluñu teranga indomptable yu Cameroun Aliou Cissé nag di xamle ci biir yëglekaay bi ne suñu yéene daal mooy daal di jongante juróom-ñaari match yi te lu ñu mel nag expérience képp moo ñu ko may ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne rek jot nañu caa jaar ba jàll loolee nag moo ñu jural ndam li ñu am tey ji ñun duñu ay équipe yuy taxaw di xaar waaye nag dañuy avancer ngir jëm ca kanam kaan Côte d'Ivoire Sénégal ak Cameroun nag ñetti bal ci benn la mujjee yéenekaay bi di l'observateur di pee ko homme di match moom Ismaïla Sarr yëglekaay bi di Le Soleil ni nañu baraawoo ñii di gaynde yi ginnaaw bi ñu amalee ab boo xam huitième de finale yi waaye nag nañu woy di représenter dignement réewum Sénégal ci dendu Afrique aller plus loin loolee la njiitu réew mi xamle ci yéenekaay bi di laas attaquant wu Lions yi nag di xamle ne kenn ku nekk am nga sa 19 janvier bés bi le jour na taarix kay dina ko bind juróom-ñeent fukki minutes yoo xam ne rek jongante nañu ko jongante bu rëy rëy Aliou Cissé ne nañu jaajuwaat ba dëgër rek fas yéene taxaw dëgmal jongante yi ci suñu kanam Rigobert Song nag di xam ne n joueurs yi nag def nañu lépp lu ñu mën waaye nag nañu xam ne équipe nationale bu Sénégal moo